来吧，来吧。 mu ne ma bëgg nga jël ko PC te en attendant. wallaay ndeysaan taxawaay bi rafet na diko ji rafet na jëf ji rafet na ànd ba rafet na loolu mooy Sénégal waaye ñu ngi tuwaawal. Baaje. naka la waaw. lakk Babil Mouridina ma jegen premier magistrat de de Tivaouane docteur ñu ngi lay ziar ah Moustapha Sylla ak Sylla la ilaha illallah Moustapha ñëw na Moustapha ngoogu Madame la Présidente Adja Seynabou Gaye Touré docteur doomu Mboro baa ngi noonu de monsieur départemental Mamadou Ndiaye si tey chef de cabinet baa ngi noonu monsieur le ministre Mouhamadou Lamine Diouf. waali waali waaye si waa wane neex te bëri garab ku doon yéen ñu dàqal nit ñi ñox ndax ñu mën a jël léegi ñoom rek ñu jiitu ah. Sablaay taaxul de. Moussa la maire Ibrahima Ndiaye. borom Thiel mi ngi nii rek Cheikh Ibrahima Ndiaye. Cheikh Ibrahima Ndiaye. borom Thiel Mbafa. monsieur le coordinateur a ngi noonu Mamadou Diagne si Mbengue. Bama aree lan oh. Wali Wali. ah boo ñëw taxaw mais bi dafa métti fii am fii doo am fii yow boo amee ndox bu ndaw nga fi mu. grand dindi. ah bala wala. salaam te kii indi ma la. Monsieur le coordinateur des patriotes, Mohamedou Diagne Simbeng. Modou Gueye Modou Gueye xoolal monsieur le coordinateur na mu taxawe ànd ak doomi yaayam Mor sa ndaanaan a ngoogu Alassane sa ndaanaan a ngoogu naar waay de Cissé baa ngi noonu la ilaha illallah kenn du jaay di jaay si jawari doole bamba bamba bamba naaru Aïda Cissé góor gi Abdallah Mbengue ngi noonu DCS SNSLM monsieur le coordinateur départemental Mamadou Diagne baa ngi noonu ci président leer ماشاءالله مسلمان دې ډپارټمنټ ته موږ ډیګل تاسو کرم پی درنو کو تاسو څنګه لا تعملوا قيدا مبي ولا يجاج في البيت ما تحمل اليمين ثلاث ها في البعنة ولا ينسى على الجنين كويس وبابا يا نايف نور Thank you. yaa Seynabou Gueye Touré qui investi ak man ak Yaya Diallo ak euh, ak ay ay maire ñu dans la dans le département donc bu ñu ñëwee ñi fi nek yépp maire yépp ñëw nañu l'ensemble des maires des autres communes sont là donc vraiment ñom ñëpp bi ñu ñëwé li ñuy def mooy vraiment def nañ lu baax parce que dañuy encourager te ñom ñëpp ñu ngi ci liggéey bi dañuy sant yalla rek mi nga xamné département bi yépp xam nañu importance li ñuy def ba kenn ku ci nek jël ci si jël ci sa wal donc loolu vraiment lu am solo la te ngi ci sant yàlla ak yàlla bu baax a baax. voilà monsieur le maire ñu gis mm. euh, bi ñu mooy confiance depuis le début jusqu'à présent ñun confiance bi ne aussi yokk mais wàññeeku parce que ñun ñu ngi dox si dëkk bi on fait des porte au jour le jour chacun est dans sa zone kenn ku ci nekk zone bi nga yore yaa ngi koy maîtriser que ça soit jaañ Sy Mbengue wala que ça soit Ablaye Ndiaye Ngalgu que ça soit Abdou Ndéné Sall que ça soit Seynabou que ça man aw ñun ñëpp kenn ku ci nekk sa zone bi nga xam ne yi moom na nga la dénk yaa ngi koy dox normalement ba pare boole si jaan ci continuer di dox dans le département cest à day def ñaari fonction day daw si dëkk bi di daw si département bi loolu aussi noonu lañ def parce que ñun aussi dañu séddoo si département bi dafa am ay communes yoo ni kenn ku ci nekk am na fu muy dem dafa ñuy permettre kenn ku nekk benn benn yi ñu ramasser parce que benn benn yi mooy def la différence donc benn benn ñu ngi def la différence donc vraiment campagne am nañu confiance la confiance vraiment am nañ ko li ñu des nag moom moo ñu sant yàlla rek xaar ba affaire bi jot merci waaw ñun de tey jii en tant que département de Tivaouane pour accueillir la tête de liste nationale notre sœur Aminata Touré Mimi donc euh, moi, comme nous ko Sénégal c'est autour de Tuawan d'accueillir la tête de liste nationale qui se trouve être une femme et j'ai tenu à ce que les femmes viennent nombreuses pour euh, pour l'accueillir donc journée ça nous permet de euh, regrouper nos troupes de l'accueillir de lancer des messages à l'endroit des populations pour nous ramener le jour des élections il est très important que nous fassions le bon choix le choix pour la stabilité du pays, le choix euh, de la continuité du plan Sénégal émergent, le choix de Réunion pour les jeunes que le président prévoit de faire dans quelques temps, le choix de la bonne coalition, la grande coalition la de la majorité présidentielle. Donc, en avant. Euh, euh, euh, en avant un sentiment de confiance parce que vraiment depuis 2012 le président Macky Sall est en train de transformer le Sénégal dans tous les sens à tous les niveaux Si nous récemment nous avons fait département un hôpital de niveau 3. Euh, d'un coût de 46 milliards qui sera construit en 18 euh, mois C'est l'espoir est permis pour qu'il soit plébiscité pour avoir sa majorité écrasante au soir du 31 juillet à plus forte raison nous le plan Sénégal émergent a pris euh, quand même la mesure des collectivités territoriales pour impulser ce qu'on appelle l'équité territoriale ñu nekk ci nag di ci pour dimbali président Macky Sall ci gox mu am lu rëy lu mu def ci département bi suñu yaakaar juddu ñu fas yéene nag donc je suis très confiante je n'ai aucun doute que la victoire est déjà là mais nag duñu nous naagu Nous daagu dañu daan dañuy yokkaat xel yi gën a wax ak nit ñi gën wax ak ndaw yi gën leen convaincre gën am beneen majorité bu gën a rëyaat euh, L'ordre dal man euh, voilà voilà man déjà à mon faible niveau j'ai un bilan bilan très reluisant dans le département que je n'ai cessé de de dire aux populations et les populations euh, seront très reconnaissants à ce bilan pour donner au président Macky Sall une majorité au euh, soir du 31 juillet 2000 li ñu waral suñu teewaay bi mooy ñu ñëw gàttandu quand même euh, soxna Mimi Touré soxna Aminata Touré nga xam ne mooy suñu tête de liste moom la ñuy teertu fii ah pour au moins mu jox ñu benn message ñu continuer suñu campagne mais ñun ñëpp ñu ngi woon ci campagne bi ñii ngi ci département yi ñii ñu ngi ci commune yi et tout ça vraiment fii moom élection yi dañu fexe ñu ko yombal parce que bu fekkee liste si Diop si euh, liste Ablaye Ndiaye Galgou ak liste Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni que vraiment man la woon ak Diagne si ak Seynabou Gueye Touré ñooñu yëpp bu ñu àndee def benn bokk boobu ñu def ko ko wuti ndam li donc vraiment ñu ngi ci ñu ngi ciy communiqué ñu ngi ciy déglu man j'ai fait au moins une dizaine de quartiers def ay port à port pour gën a informer nit ñi nit ñi ba léegi affaire boobu comme élection locale dafa métti woon ba léegi dugagul bu baax ci seen. xol yi ak xel yi donc ñi est di informer est vraiment pourcentage bu bas. parce que si jëlee li Diop Sy amoon ak li Abdoulaye Ndiaye amoon ak li benn bokk yaakaar amoon boo ko dina mën dinañ objectif ñu am au moins 70 à 80% de pour C'est un événement simplement parce que tennis national doit wër ah, dans toutes les villes mais après nous on continue notre campagne vraiment dafay ñëw ignorer pour encourager nous mais la campagne ça se fait ici les opportunités sont locales, la campagne est, locale. Donc euh, on va frapper toutes les portes, expliquer qu'il y a deux coalitions. La coalition quand même de l'espoir, la coalition de la paix, Jam ak coalition bi nga la déformation fausses nouvelles en ah, pour quand même détourner la conscience des populations mais vraiment nous, nous quoi donc je bi le président Macky Sall def na fi lu bari dañu majorité assemblée parce que président dafa am ay programme yi nga continuer pour avoir l'émergence au niveau 2015-2035. C'est extrêmement important pour nous mën égaler quand même les programmes de rattrapage PUDC euh, Promoville Puma nous ah, mu aussi def ci dose sociale importante la solidarité intergénérationnelle avec la CMU la bourse euh, bourse d'égalité des chances avec ah, ak euh, vraiment le programme social yëpp mu def ko ak cash transfert bu mu donc nous devons tax ñun ñëpp Tivaouane lim ñuy parce que nous avons 1 jox milliard nous avons la mu avancer la milliard nous wax mu defal la vraiment fii ci mosquée bi li fi donc tu as dit que tu as voter massivement pour le président Macky Sall parce que li ñuy defal tous les présidents sont passés diggaate nañ kenn mësuñu def dara à part le président Macky Sall on ñuy dit di def 17 km de route assainissement 4 milliards pose première pierre hôpital niveau 3 mosquée bi 2 milliards ah, amélioration des infrastructures religieuses au niveau de Tic donc vraiment président Macky Sall deseetuñu tal ñun de ko dara te ñu ne teraanga koy faj donc il faut que ñu gàttandu ko ak teraanga boobu. moy wote Masjid Ba donc ben juste rek une question vous êtes à quelques jours des fins de de la fin des campagnes du euh, gis ni vous êtes trois amna trois personnes yo xam ne investir nañ sur la liste nationale monsieur Demba Diop si Serigne Gueye ak Émile donc ban sentiment ngeen sentiment bi ñu am moy que président daf ñu bëral loxo bu le président bëral loxo da ngay xam parce que 550 dëkk mo am 550 dëkk benn député rek bu ko joxon chaque dëkk. 550 député lay doon te député yi 53 rek la 53 yow nga sa dëkk ñu beral ko ci ñaar ci liste nationale kooku dañ laa beral loxo ku ñu beral loxo rek dañ koy xam ne dañ laa beral loxo nga war a góor góorgóorlu ba fay loolu jërëjëf. xeexal Tivaouane parce que yàgg na xeexal Tivaouane mais booy xeexal Tivaouane te nekkoo assemblée nationale du yomb mais boo nekkee assemblée nationale chaque fois ñu ñëw fa les ministres di voter budget et tout di nga mën am occasion directement parler aux ministres wax ak défendre les projets pour que maintenant la majorité se dégage pour que les politiques publiques aussi puissent s'effectuer

et c'est ça le chemin de la victoire. Et tous les départements, war avons 7 exemples, exemple exemple pour être ensemble, travailler en synergie et assurer la victoire au soir du 31 juillet 2022. Merci beaucoup. Merci. kajoor ñii yàlla bu soobee yàlla ñu yëkkati ndam bu am solo fii la 31 jox ko ko ndax Tiwaawan moom pare nañu bu yàgg ndax ku du jiital ñu ni jaañ si mbéy ak ñi ñu investir tubarfakala macha allah bu Gaye Touré ak monsieur Aymirou dem ba Diop si national Yaya Diallo ñun pare nañu bu soobee yàlla ànd ak ñoom yëkkati majorité assemblée nationale teg ko ci loxo président de la république teg ko ci loxo monsieur le euh, coordonnateur Diagne mu te ko ci loxo président jëm kanam xaaral ma jox Assalamualaikum mbooloo mi suñu ñew tay ji ni du leneen lu dul teeru suñu tête de liste nationale mooy Adja euh, mbimi Touré kon nak jigen ñi ñoo aye kon jigen ñi nañu lu ba buñu duggé ci irni buñu démé demee jël bulletin fa tabaarakàlla macha allah nañu xol ki nga xamni mo musoru musoru bu rafet ba ta ree ba neex ñu jël ko duggal ko ci biir urne té maytu gor ñi waaw nak jigen ñi ñoo aye ñu andando nak ak suñu coordinateur départemental di aladi Diagne ci Mbeng mi nga xam ne moom la président wóolu jox ko département bi mu àndandoo ak ñun àndandoo ak département bi yëpp bàyyiwul benn commune bàyyiwul kenn àndandoo ak ñëpp fa tabaarakalla macha allah pour rek ñu am ndam boo xam ne dañ koy teg ci diggu loxoom teg ko ci diggu loxo Seynabou Gaye Touré teg ko ci loxo diggu loxo ay meeru ñing teg ko ci diggu loxo euh, Demba Diop si teg ko ci loxo euh, euh, ci diggu loxo Yaya Diallo ñoom ñëpp

Sénégal 500 métiers yu bees su ñëwee soo amee jom touti, di nga liggéey man nag foofu laay accès sama débat tout le temps li président wane si PUDC c'est Promoville si PUMA wane ko ci ay projet sectoriel si agriculture ci élevage si pêche tax ni ba ñi nga xam ne la jàkkaar lool comme amuñu luñ ko mën reprocher, reproché lee leen dese ñaar la sos di wax affaire ngóor jigéen président li mu ci wax kanamu président Amérique c'est kanamu premier ministre euh, euh, Canada Doyna. sos di wax yo xamanteni ni dara amu ci mo len dese waye nak ku dégg liko serigne Babacar si Mansour wax ku dégg liko serigne muntaha wax ndaw yi budé am nañ ak touti dinañ xamni jappalé Benno bokku yakar fa la sen intérêt nek et ça on le dit le le le cœur meurtri parce que su ñu gisee ñuy topp ñoo ñun dañu xam dëgg-dëgg lan mo len taxa a té te li leen tax a jóg intérêt Sénégal li leen tax a jóg la parce que nak président bo xamni amulo lokoy reprocher nga dem bakoy sosal waye bu deekee sos bi aussi bu yàggee nit nañ xam ne dëgg la nga indi violence xam nañ ne ndaw c'est un fertile à la revendication moo tax ñuy indi ay mbir yoo xamante ne nii pour teg ko ci seen loxo ñu ànd di def folklore c'est pas ça le Sénégal Sénégal dafa tegu ci rampe de développement enfin depuis 1960 nous ngi un président qui xam ne gëm na ni développer suñu kon les jeunes les jeunes les jeunes encore soyez conscients Nous, ne sommes di wax ak jeunes dañu bëgg jeunes on a toujours parlé aux jeunes maintenant on veut parler avec les jeunes Le président moo ko njëkk a def ndax mi ngi président de la République bu téléphone am ni ndaw ñu lu ngeen soxla laaj laaj nag mooy wóolu na boppam président bu wóolul boppam du ndaw parce que xam ne ndaw dafa tàng du def loolu kon tey jii nag Tiwaawoon la suñu tëdd liste di waaj a agsi moo tax lu mu guddi guddi dinañ ko xaar ñëw teeru ko teral ko bu subaa ñu continuer ci liggéey bi au 31 ñu am la majorité absolue. monsieur le président mën nga ñëw fàttali ki nga xamante ne mooy candidat yi nga xamante xam nga fii ci Tiwaawoon bu dee département bi ñaari candidat la ñu am. kenn ki mooy Aymerou Gningue nekk tête de liste département bi ak soxna Seynabou Gueye Touré bi nekk également président conseil départemental mais ñun dañu am chance au-delà de ces deux candidats au niveau national le maire de Tivaouane Demba Diop si nekkat candidat ci liste nationale ci position boo xam ne yaakaar nañu dina doonaat député Yaya Diallo nekk responsable des jeunesses féministes du du féminine du parti socialiste moom tamit dafa bokkaat ci ñi nga xamante ni dañoo war nekkaat député te Tivaouane la yeewoo kon ñun jàpp nañ ni am nañ possibilité am ñeenti baat yoo xam ne dinañ ñu teewal

mi ngi woon sur les rampes du développement dotul demati fenn day tagga tembe comme niko olof yi di waxe te nag Sénégal mérité wu lolu motax bu beus bayit ci taw lañu ñu ne maa ngi wax militant yi bu kenn tayal ne ñepp jog dem voter ji ñun responsable on va prendre les dispositions pour militant bu wara voter nga wote incha allahu taala euh Adja gam wax na ko wax Je ñi monsieur le ministre Abdou on a le plaisir de recevoir l'administrateur du parti également Mayel Cham. pour tay ji nga gis personne ne manque à l'appel. tout le Benno Bokk Yakar, le maire Demba Diop si Abdoulaye Ndiaye Galbou, Seynabou Touré monsieur le ministre Abdou tous les maires, Pape Dieng mi ngi ah, les maires de de Chérif le maire de Nganjou, manam fukki collectivité locale ak juróom-ñett ñëpp ñu ngi fii pour wane rek ni ñun ñëpp booloo nañu takku nañu taxaw nañu li ñuy jot a dox ci ñaari semaines yi settale bi nag moo des settale bi nag porte à porte yi ñu fas yéene def tey ñu bëgg dalal xelu suñu tête madame Mimi Touré ren nag jigéen ñi ñee xew la ndax mooy tête de liste bi wan ni lu mu guddi guddi ñun département Tivaouane dinañ ko xaar wan ni ko людям

Madame le Premier ministre, Madame la tête de liste demande aux maires et candidats et investis Dembe Diopsi de venir la rejoindre. Dembe Diopsi, Madame le Premier ministre, tête de liste, kaw nit ñi amuñu fu ñu nekk nit ñi amuñu fu ñu toog suñu préoccupation yëpp mooy defar dëkk bi ba nit ñi xam ne ñu ngi koy defar yàlla def na par avec ONAS on a eu des motos pompes pour la première fois teewoon mu daw ci liir bi ñu dindi ndox bi ci liir bi mësu fi am kon nag boo ñëwee tey duñ la seeleel ne la boo demee nga ne président Macky Sall problème mu Tivaouane assainissement la ñun xam nañ ko ñu ngi siy liggéey jox nañu ay jumtukaay yoo xamee ni ci nawet bi dinañu mën a liggéey ba te dara du xew ñu ngi kontaan si yow di wax ni campagne bi boo demee nga ne Macky Sall nga ne ko Tivaouane a ngi koy sant dëkk bu mel ni Tivaouane boo bu jëlee ci benn commune trois personnes nga investir leen muy Seynabou Gueye Touré. muy Yaya Diallo muy jofi, ñun ñepp ñëpp ñu nek tipir deug tiawon ci bir commune tiawon kon ñun tiawon amel nañ ko ñukal ñukal biñ ko am mo tax ñu tok bo heur bi di la xaar lolu mo tax xalé yi taw di la ne que boo demee gën a Macky na xelam dal fo mu daan am ay dix gi ay sa ay sa 50 cinquante ak soxlo wuñ ko ñun 80 jëm jëm 100 ñun 80 jëm 100 ñu dem ñun suñu mën moom 80 la 80 pour cent la ñu bëgg te 80 pour cent bi ñu ngi ciy sant maire yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi yëpp l' ensemble bi kenn nelawatul guddi kenn nelawatul guba bëccëg kenn ku nekk yaa ngi daw loo mën Ablaye Ndiaye Ngalgu mi ngi def lu di daw suba ngoon ak guddi Diagne Sy Mbengue il fait la même chose Ndéné il fait la même chose neko fi politiciens yi fi nekk yëpp àndandoo ñu nek ben ban ben buum ben taxaway kenn dawul kenn dasul ñun nak tali bi ñoo koy gérer Ibrahima du jaar Massamba du jaar kenn amu fi ndigal ben ba da fi am ci ci baatu xaalis bi lañu ñu topp àndandoo nañu di def li ñu bëgg a def dañu bëgg nga xam ne yow bo ñëwé ci liste bi contenter le Sénégal yeb am c'est la première fois ni campagne. ba heure bii nga toll ñu ngi sant yàlla amul coow ñun du ñu saaga du ñu xas du ñu wax lu ñu war a wax du ñu sos du ñu wax lu dul noonu jàppal ni ñun ñu ngi seen kanam ñu ngi seen ginnaaw ñooy seen défenseur ci gauche ci droite ci kaw ak ci suuf ci bu soobee yàlla li nga bëgg a dégg am ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm asalaamaaleykum jërëjëf. tête de liste, madame la présidente Mimi Touré la présidente ñu lay dalal dëkk buñ la bëggee dëkk buñ la soppee dëkk buñ la wóolee ñu ngi lay dalal département son excellence le président Macky Sall ku gis mobilisation bu exceptionnelle bi di nga xam ne Tivaouane vote Benno Bokk Yaakaar ku gis ni ñu àndee muy le président Ablaye Ndiaye Ngalgou muy Mamadou Ndiaye Sy Mbengue Abdou Ndéné Sall muy Mamadou Diop Sy muy Seynabou Gaye Touré nga xam ne le département de Tivaouane a choisi la tête de liste Benno Bokk Yaakaar tey ñu lay dalal avec fierté avec honneur avec plaisir tey dama jàpp ni Sall soir du 31 juillet dinañ opposition bi ba ci kaw ci suuf nawoon fawoon ak ñawoon ñu ngi lay sant di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. que tem L'agir spirituelle Les mères de femmes de première ligne individuelle de Nous avons le président de la commission, le président Macky Sall bu ñu duwee pëlëm dañuy jottali sunu ziar le khalife général de Tidiane sëriñ Babacar Sy ñu ngi koy ziare di jottali à son fils monsieur le président Macky Sall fii ci Tiwaawan defe le président xelam mën naa nous bu ñu gisee mobilisation bi mais surtout gis l'unité de tous les responsables de la coalition de Bokk Yaakaar am nañu njort ne fii lamb bi fi am dafa mën a bëre fii score bi xaar mu wax leen ko c'est pas moins de quatre parce que nag loolu aussi il faut score liste parallèle la Remember the C, must go in the list of parallel, one man man and then to the organ of an government person, all of them are from on the floor. Yogi no last jam the mayor bada partama. Kisan tis uni, agad le responsabu, magi te mayor babu, ci loxo la veillante lion la veillante leader Seynabou Ndiaye Touré le maire du département le président du comité électoral départemental di aussi ma commissaire, et tous les responsables qui sont là du mon frère et ami Farba Sall lay le communateur communal ñu ngi koy nuyu mon ami Massamba Sall ñu ngi lay nuyu Farba wax naa ko ñu ngi nuyu l'ancien député Mor Kane Ndiaye ñu ngi lay ziare ñu ngi lay nuyu bu baax fii fii fii lamb du fi am fii lamb du fi am fii lamb du fi am waxatuma la vie, c'est gagné. Et c'est gagné parce que ngeen seen ci bilan président Macky Sall fii ci département de Tivaouane. bourse familiale yi dugg fi la DER jàppale na jigéen infrastructure yi gis ngeen ko ba ci gi ndax président dafa fonk les villes religieuses religieux. président dafay jàppale les daara bëgg ñu am des daara moderne rawatina nak qui ci la ville religieuse de Pierre. comme après vous nous leen féliciter ci cette mobilisation exceptionnelle au nom du président de notre coalition Ben message rek lañ leen di jox le 31 juillet.